bi pour et pour lay la rasool déedéet ah macha allah lay la rasool waaw waaw c'est joli macha allah yow xam nga ni di nga am lu rasool toog rasool jikko la xam ne dañ doon bébé bi mu nekkaat ci waaw macha allah macha allah bilaay jikko dafa rafet daara daara daara bébé bi nu mu tudd lay la rasool lay la rasool lay la rasool lay la rasool loo wax ci lay la rasool yow lay la rasool waaw c'est normal ndax garab bankaar gaa tiital kii bu amee lay la rasool jaadu na yéen tamit tagguñu ko ci maam tagguñu ko ci wa innaka la ala xuliqil azim ah. yàlla la ko tag mhm. daara boo ko waxee nanga mu ne xaar mhm. mhm. bi lan ko ciy wax sant yàlla ak ñaan te fii ku ne ñaan donc bokku ci sëy waaye bénéfice la ci bu la yàlla mayee da sant ah. ndax mooy signature bi mm-hmm. yàlla na ko yàlla màggal ay woy juróom mm-hmm. ba ñu wute dara pour wàlla misaal su ma baay bii di tudd tey waaw baaxlil bii moo ko moo la jox kurus loolu ëpp na gir yaa bi may may kurus bii moo ma ko ku ne laaj na sama baay bii di tudd tey. moo sama rakk la ñuy tudd. sa rakk la ñuy ah yaay taw yaay yaay taw daaru daaru pare balaa ngaa di est man jiw gi damay beñe di. daaru balaa ngaa dugg rek. sama yaay tu ngénte du ma beñe woo samay xarit. dañuy ah. <laughs> bañ ma may la 1000 nga beñe. ah waaw <laughs> maam. aca mbokk yi ba tey ñu ngi fi nga xamante ni moo di euh, cité Aline Sow ngeen fi nga xamante ni grand artiste euh, Daro euh, di suñu xarit ci suñu siisa tey nag ñu teewal ko fii Daro ñu ngi leen nuyu bu baax di kontaan ci li xamante ni di bés bi. tey naka nga bindee li nga bi. contentement rek. waaw am mbégte contentement. waaw parce que doom dafa ne xam nga doom moom alal la. Mhm. donc sant yàlla. Mhm. comme mucc naa ci jàmm Sénégalais yëpp ëmbale ma. yàlla def ma mucc ci jàmm maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi sant yàlla bu baax tey say xarit say ànd jàmm ñëpp wuy si la ci li nga xamante ni tey moo di bés bi. Mm-hmm. loolu aussi naka dala def ak yëg bi nga xamante tey ñoom lañ taxawee ak yéen. waaw loolu dama naan sax man li ma li la li ma wax ne que damay tudd rek parce que dama xawoon feebar ma ne naa tudd. Mm-hmm. ba gën a féex doog a a xew mais je pense que su ma baarewul nit ñi. Mm-hmm. dina ëpp li li ngeen fi gis. waaw ndax yàlla moo wootee ñëppay ñëw macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. donc sant yàlla woote ñu wuy la du bari mbokk mais nee nañ rafet jikko la. Mm-hmm. mais bari mbokk la macha donc kontaan samay sœur a samay mag samay xarit. samay mbokku artiste contentement la rek. waaw taxawaay bi nga xamante ne aussi sénégalais taxawal la. loolu nu mu la def si yëg-yëg bi ñu am ci yow. waaw loolu chaque jour daf may jox force rek. may gën a yokk jom. di bañ ñu dégg ma ci lu ñàkk uh-huh. di gën a defar sama toogaay lu may def ma di ko jéem a xam ndax sax même su mënul may jéem pour ñu bëgg mhm. loolu moo waral bi ma tolloo diggante ma dem tournée mhm. ndax mënu ma woon a toog mhm. année bi sama sama alalu yàlla la jigéen magasin yàlla la woo xam ne moom ci lay denc li mu ngënee la donc moo jigéen dafa war a xam boppam am moom mooy di éviter di dugg ci ay détails yoo xam ne yàlla nag mooy suturaal nit mooy sàmm nit mun nga toog doo def dara xëy ñëw waxal la loo xam ne defoo ca laaloo ca donc boo toogee dégguñu la ci dara bu mu tax nga naagu ni man du ma def lu may waxal mhm. suba mën nañ waxal daara loo xam ne daara def wala sax daara juum def ko mhm. koo xam ne yaa ngi ci daal nekk jigéen nekk ci milieu bi mhm. del éviter del moytu rek del moytu boo moytoo rek yàlla jàppale sa bopp di xam sa tànk gàtt tànk boo liggéeyewul nga toog sa kër je pense que loolu dina la sabe ci yenn loolu laa leen di ko macha allah yan kàddu ngay yëkkati ci ki nga sa borom kër sama ah. maa bëgg sagal ma lu ma nekk mu nekk ci waaw su ma sonnee moom laay gis su feebaree mu taxaw sama visite yëpp moo may gunge. Mhm. sama ordonnance musul fanaan. te xam nga loolu xaw na jafe ci jigéenu warul ni ordonnance am di seeree musul fanaan. Mhm. ordonnance bu am feebar 9 mois. Mhm. ordonnance bu ma am du fanaan da koy jënd. su may dem visite su fi nekkul sax danaan ma xaar ma ma ñëw dama wooteel clinique ba di leen damaa tukki dama ñëw ma ànd ak yow. parce waroo dem ndax da nga feebar. ma war a tourné ji mu metti woon mu ne ma mënuma la tere sa papa mhm. bu su ma soñoon doo dem mais aw ma ci pexe parce que contrat nga nekk ba pare sa papa ma ci moo ma la may mhm. xajuma seen diggante comme moo la soxla mhm. bàyyi ma ñaanal rek nga dem am nga ñaanu waajur di nga ci génn daal di may ñaanal te suma ma tere woon ma toog maa ngi ëmb doom mais mu ñaanal ma bàyyi ma liggéey ma dem bégal askan bi xam nga loolu xaw na jafe ci jigéenu warul ni ordonnance am di seeree musul fanaan mhm. bu ma am feebar neuf mois mhm. ordonnance bu ma am du fanaan da koy jënd mhm. su may dem di moo may gunge su fi nekkul sax danaan ma xaar ma ma ñëw dama wooteel clinique ba di leen damaa tukki dama ñëw ma ànd ak yow parce waroo dem ndax danga nga feebar ma war a tourné ji mu metti woon mu ne ma mënuma la tere sa papa mhm. bu su ma soñoon doo dem mais aw ma ci pexe parce que contrat nga ba pare sa papa xajuma ci moo ma la may mhm. xajuma seen diggante comme moo la soxla mhm. bàyyi ma ñaanal rek nga dem am nga ñaanu waajur di nga ci génn daal di may ñaanal te su ma tere woon it toog maa ngi amu doom mais mu ñaanal ma bàyyi ma liggéey ma dem bëggal askan bi ñëwaat donc xam nga ne mënu ko fay mhm. ba pare moom nit ku baax la sama jëkkër dafa baax waaw yàlla mooy baaxal nit yàlla mooy yar yàlla moo ko yar mu nekk nit ku baax ku ku yàlla baaxal koo xam ni macha allah maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm mhm. yombalal ko li muy yor yëpp ak samay doole mhm. lépp lu bi ci des moom moom moom doot moo ko ko waxal moom danoo bëggat ko ah. ñu leer loolu moom mooy géej jàmm na <laughs> mais mais ni sénégalais di wax ah c'est artiste yombul loolu loo ciy wax pourtant jafewul de. jafewul non jafewul. artistes yi dàq xam sëy fii. c'est que nag sëy divorce artistes yi bëri. mu mhm. mhm. ngi bëri mais parce que ñun siiwuñu. Mhm. ñun ñoo siiwal. c'est vrai siiw du jaam yi borom boo siiwee loo def nit ñi yëg ah. mais lii te amuñu sens su sëy. mais ñoom ñëpp bëgg a sëy ku sañoon soo amee jëkkër nga toog fa. mais sëy nag bakkan. bakkan warul daal dafa ko neex lay dakkee. jafewul artistes yi daa xam say divorce artistes day bëri mm-hmm. ñu naan artistes yi du ñu saykat mm-hmm. mais pourtant yeneen divorce yi ñu ngi bëri mais kenn yëgu ko parce que ñun mm-hmm. ñoo siiw du jaam yi borom siiwee loo def nit ñi yëg ah. mais lii xëy di tas ci ay say kenn xamul nu ñu te ñooñu kenn xamule donc artistes bëgg nañ say mais peut être amuñu sens su say mais ñoom ñëpp bëgg a say ku sañoon soo amee jëkkër nga toog fa mais say nag bakkan te bakkan warul daal la fu amul borom kër yàlla may la borom kër boo xam ni dara da ngeen di sokkoorloo ba pare sëy ba nga toog fa ci barke Sëriñ Fall mais quant à sëyu artiste yi moom pour man du du artiste rek ñooy tax sëy yëpp ay divorce sëy yëpp mooy yàgg tamit mhm. yàlla mooy def rek boole ay nit du dund ba dee mhm. boole ay nit du yàgg mu tàqali ko ku nekk ci biir sëy yal na yàlla sa taxawaay man moom ak sama lay la soor bii moom ak sama jëkkër ji fukk ak benn nan ma ñaanal ñu ma toog ci amiin sëy bu ñu juree doom da ah. waaw kay nan ma ñaanal nan daal loolu laa ko di sëy rek ba dee ah. ñu naan ma buñ la dooree di nga muñ ma naan sëy rek ah. ba dee mais buñ la saagaa na nga muñ sëy rek macha allah looy kàddu yi am su ko waxee dinaa ko dëgg. tubaarkàlla allah. gis bu ñëwee Touba Mbacke dafa maa ko doon sonn Mbacke. la rek ba dee dañ koy sëy ca yàlla na dee yàlla na nga dund ba màgg ak paap ndax paap rek laa naboon jërëjëf jërëjëf amin waay amin jërëjëf ndeysaan waaw waaw sa jàmm sa jàmmu jëkkër ji lim la ñaanal loolu dina am ndaxte la jur ñoo la jëkk a ñaanal ndax daara yow moom damaa tey sama xol daa fees mënu maa wax te néeg balaa nekkoon ma ne force su ma génn waaye man mënu maa wax ku ñuy xam ne man du ma wax su ma waxee tey sama xol seet ma lay ñaanal nag fi nga jub yàlla fa yiw yàlla te bu deexee yàlla yow da ngay a door nii mm-hmm. dangaa door nii rek yow moom waa réew mi laa ko wax de daara day soog a door ca kanam nga jëm ca kaw ndax daara dama sagal danga maa sagal ba nga nekkee xale ba tey sama rongoñ ji mos a génn ndax daara kontaan ci yow nag mm-hmm. ak xol bu fees moo tax ma li ma bëgg sax mënuma koo wax. ndeysaan sama xolam bees ndax man ku ne xam ne du ma wax kat. moo tax man sama doom ji dama waxal. ndeysaan gërëmal ma daaro gërëmal ma ko bu baax loo wax doyul. ndeysaan waaw ah, loo wax rek dinaa la may ba xam ne ko gërëmal ma ko. ndeysaan waaw damaa ko ko wax. daa kontaan ndeysaan daa kontaan ndeysaan ba rek a ci mujj. ndeysaan dañuy takk soxla maa ngi toog te daara mën na maa wecceeku. man du ma yaay diriyanke mën ngaa ci diriyanke yi dama leen day mu bokk ak yaayam ndey baa ne xeebu ma waaw xeebu ma damaa wér sax mënu maa ñëw si sa lan ngay dolli ci loolu li ah. mu toll doo amee rak mu déggal la mhm. doo ko waxee mu def doo ko teree mu bàyyi loolu rek doy na sant yàlla mhm. ñu waroon a yor suñu yaay da ko yor doon sama taaw yaay bi moo koy yore mhm. wala man ma yore ko mais da koo jël teel ñu ko dégguñu ci dara nag duñu ci déggoon dara ëpp ñu farata dañuy ñëw récupérer ko mais ci yaayam la commencé avant jëkkër ci yaayam la commencé di defar yaayam lépp lu war ci yaayam mhm. moom la yaa ngi dégg li ma la wax doomu ndayam jee moom la moo ko takkale jaba def ko du ma waxal du ma triché nag pour cherafaal googu moom nit lu ma defal mhm. doomu ko jël takkal ko jabar indi ko ci kër gi xale bu ndaw du ko neexoon du ko mhm. mu yëngatu ñëw suñu rakk ma ñëw damaa ko daal greffage laa bëgg wala yërëm jotu ma dama moom damaa pataa yërëm jox ma dama la ko greffage mu yëkkati gerefaat jox ma rëccu ma nag ba mu nekkee xale lu mu doon wax soxna Gueye yow laa magale sama bopp da ba muy xale bu ndaw amagu jëkkër amul dara da yëkkati woon baat boobu ne ma yow magale sama bopp sa ba léegi nii macha allah jógeeguñu foofu mu ngi doxal cër bi lu ko doxal woon nag ma ko doxal mais ba léegi mu ngi doxal cër bi fii tamit foo xamante ni sama rak foofu lañ koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla bàyyi ak borom këram yàlla bu leen cat yàlla na leen cat seet maa ngi ko koy ñaan mu toog ba doomam ji tey ñu koy defal lii yàlla mun na ko yàlla na ko def ndax loolu lépp la rek loolu lañ lay fay macha bu baax la nit ku baax la vraiment jigéenu sëykat la nag ba suñu famille ñëpp ay sëykat la luy neex da ngay toog hmm. muy naqar da ngay toog yàlla nag mooy boole sëy ak tas hmm. mais sëy moom hmm. dañ koo doon suñuy maam suñu yaay doon ko ñu doon maam ci ñoom macha allah jërëjëf lan laay ci lan Ada.